li ñu def tey defoon nañ ko ci biir campagne bi parce que dañu profiter ci octobre rose parce que euh, feebaru euh, cancer yi du sujet tabou nekkatul sujet tabou ci euh, population bi muy cancer du col de l'utérus ak cancer du sein ñoo xam ni mooy terrasser suñu jigéen ñi mu doon lu doy mais ñun dañu bëgg gën a jege population bi ñu génn ci hôpital yi ñëw moo tax ñu ñëw fi installé benn hôpital installation bi metti na mais dañ ko installé pour nekk au plus jege gën a jege population bi et en contact direct avec la population permettre jigéen ñu ñëw def ñaari dépistation dépistage yi cancer du col de l'utérus ak cancer du sein mais tamit dañ ci bari luñ ci yokk dañ ne dañu indi benn hôpital fexe nañ ba dañu def euh, test diabète indi benn euh, spécialiste en cardio mu defal leen électrocardiogramme du fay dara may leen garab du ñu fay dara indi benn ophtalmo mu xool seen i bët ñu maye fi sans lunettes du ñu fay dara mais nag pour jigéen nekk ci jàmm il faut njabootam nekk ci jàmm ñu ne tamit nañu indi benn pédiatre mu mën a toppatoo xale yi may leen garab jigéen ñi indi ko moo tax nga gis rush bi mu am mais lépp bu ñu ko defee nag dañ ko delloo ci suñu mentor suñu kilifa suñu mag mooy le premier ministre Amadou Ba moo tax tey ki jiite cadre moom muy Mamadou El li ak frère bi nga xam ne moo sës si moom rek muy Abbas Ba ànd ak jigéen ñi nga xam ne tey jii depuis euh, lu yàgg ba léegi ñi ngi def ay financement di leen may pour wan leen ni Amadou Ba mu ngi ci base bi donte amul jot waaye nag dañu war a ñun président li mu li mu prôné mooy ñun nañu jege askan wi nañ leen jege nañ leen dimbali waaye président ñu ngi koy gërëm li tax ñu koy gërëm mooy dafa jël doomu parcelle mu nekk plus de 16 voire 17 millions de sénégalais mu ne ko yow laa jiital ngay doon sama jëwriñ donc président Macky Sall ñu ngi koy remercier ñu ngi koy wax du am gàcce. lépp lu mu séntu ci Amadou Ba ci politique ñun dinañ wàcc ci base bi defal ko ko nga xam ni activités yi nga xam ni moom lay mëne ak doole ji nga xam ni moom la bëgg askan bi am ko ak jàppale bi nga xam ni moom la bëgg askan bi am ko mu yàgg ci ñoom allahumma salli ala sayyidina Muhammad euh, di lay sant di sant di gërëm Xaadim di nga xamante ne di suñu frère euh, du ma ne ci li mu def nii donc fii ak ñaar weer mun naa ne ci élection yi ñu jógee defar na lu mel nii donc def fi dépistage euh, collectif n'est-ce pas, pour les femmes atteintes de, du, du, cancer. Tay aussi, nous devons avec la médecine générale. Donc, nañ ko ci que te man aussi, xam xam ci sociale dama ne politique aussi, lu dul social. Parce que nous avons amal len njëriñ jege leen boo leen soxla nga gis len te lii je pense que bu ko defee dafa fekk ñu am benn nit ki nga xamantene mun naa né moyen le champion ci sociale ci walum au niveau des parcelles et au-delà même des parcelles parce que Amadou man nee naa commencé naa def politique au niveau des parcelles en 98 d'abord avec l'URD de 98 à nos jours j'ai pas vu un responsable politique ci dimension sociale yi Amadou nu mu koy taxaw nu mu koy defee nga ñëw fekke ay jàkk yu xawoon yàqu wala ay mosquée yu xawoon yàqu nga terrasser lépp financer leen ba nit ñi di ci mun julli nga ne loolu doyul nga accompagner les femmes aujourd'hui c'est la couche la plus vulnérable nga accompagner leen ci activité génératrice de revenu nga accompagner leen ci seen yëngu-yëngu ci yu bëri donc loolu gis nañ ko ci Amadou te euh, tayu tayalu ci xaddiwu ci donc ah kii bu ko defee Khadim je pense que dañu ne lu war la ki nga xamante ne euh, jege nga Amadou Ba di ko jàppale ci wàllum politique ni moom nga war a mel donc moo tax euh, Khadim ñu ngi lay sant di la gërëm. di la remercier au nom du premier ministre. ànd nañu aussi ci délégation bi Abbas Ba. ki nga xamante ne c' est un responsable politique. Mhm. mais pas le petit frère du ministre mais c' est un responsable politique bi nga xamante ne taxawaayam fii ci parcelle kenn kenn dootu ko naatable. man je ne veux pas même qu'on présente comme le petit frère du ministre. mais qu'on le présente comme un responsable politique ki nga xamante ne ci implantation ak pénétration parti bi liggéey na lu bëri ànd suñu beneen rakk. Raymond docteur Raymond Kali nga xamante ne aussi ci cadre yi la bokk bokk ci jeunes yi moom aussi taxawaayam rafet na donc ak femmes yi fi nekk ñoom ñoom ñoom ñoom Ndeye Seck ñoom Ndeye Maymouna Sarr ñoom ñoom Leysa Gueye ñoom ñoo ñëpp gis leen fii ñoom Khady Cambrène ñoom ñëpp franchement gis nañ leen fii donc di remercier également la presse seen taxawaay rafet na la RTS notre chaîne notre télé gis nañ leen fii donc Aziz aussi ki nga xamante ne kenn dootu ko présenté parcelle Aziz Diagne ñu ngi fii ñoom Aada Show ñoom yaa leen gën ñoom day pend état ñoom ñëpp ñu ngi fii saa yu parcelle wootee ñu teew donc ñun parcelle la ñu am parcelle la ñu am donc président du ñu gën a gore puisque tànn nañu tànnal nañu suñu doom dinañ ko won ne que franchement kontaan nañ ci tànneef boobu waaw donc socialement dinañ ci taxaw xar ci sañu tànk tubéy donc ba loolu mën a antu donc loolu la ñu amoon ci li ñu wax di leen sant di gërëm